cérémonie tey bi dafa nekk daje bu am solo euh, bu ñu euh, te jëmmal fii si école Mamor Diarra euh, mu nekk cérémonie boo xamante ne dañuy ñëw tey pour enrôler ay élèves ci CMU CMU élève nag dafa nekk politique bu état mu nekk stratégie boo xamante ni gouvernement Sénégal daf ko teg pour jàppale xale yi ci seen wàllu santé à l'école gën leen a yombal ci esprit solidarité ak jàppalante ba nga xamante ne xale bi day joxe mille francs ak ñaari photo ñu enrôler ko pour at mu mën a di faju ci structure de santé yi loolu nag mu nekk lu baax euh, ñu xaw ci am jafe-jafe tuuti euh, soxla ci aussi ay partenaires euh, major Kandji comprendre ko ñëw fekk suñu ci terrain boobu depuis le début de l'année mi ngi ñuy jàppale di ñu enrôler ay xale ci école yu bari fii euh, donc euh, dañu koy remercier rek di ñaan aussi yeneen partenaires yi nga xamante ni euh, ñi ngi disposé pour accompagner éco école yi ñoom aussi vraiment ñu inspiré wu ci li nga xamante ne def na ko ce matin pour ñëw jàppale ñu évidemment parce que soxla nañu ko. ku ne xam na ni Mbacké lu ëpp ci élèves yi Touba la ñuy jóge ba nga xamante ne soo ñëwee tey ci suñu école yi macha allah effectif yi xaw na am doole lool lool lool. tablement yi du matee noonu euh, moom aussi comprendre na loolu ba nga xamante ni tey bu muy ñëw aussi yamul rek si enrôler ay élèves indil nañu aussi ay tablement euh, ba nga xamante ni yii ñu ngi koy yóbbu ci suñu école bu nga xam ne nouvelle création la bu ñu fii ci Baofel parce que foofu aussi euh, am nañ fa lu toll ci deux cent cinquante élèves yoo xamante ni dañ daan jógee Baofel di ñëw di jàng si fii si biir commune bi IEF daal di xam ni loolu métti na pour élèves yi métti na pour parents yi mu ubbil leen benn école foofu boo xamante école de proximité leen mu jaay leen fi mu toll nii sax amaguñu école bu bu boo xamante ne ñoo ko moomal suñu bopp dañ ñu abal ñu def ay abri donc dañuy soxla aussi ay table euh, ci kaw loolu nag la major ñëw moom aussi comprendre loolu indil ñu ay table banc mu nekk aussi lu ñuy saluer parce que du fii rek je pense que ci département bi yëpp bëri na école yoo xamante ni tey euh, soxla nañ fa ay table banc Euh, ñuy profité aussi encore ci occasion bi rek di ñaan aussi yeneen partenaires yi ñi nga xamante ni ils sont disposés accompagner école ñoom it ñu ñëw fekk suñu ci terrain boobu. wàllu cantine scolaire yi aussi loolu am na solo parce que dafay rejoindre toujours li ñuy wax euh, les question de santé à l'école parce que euh, bu ñuy wax santé yamul rek ci semi élèves. Euh, volet nutritionnel am na ci surtout si xale yi nga xamante ni dañu nekk si structure DIP yi mooy maanaam tout tànk yi nga xamante dañu nekk préscolaire euh, nga xamante ni ci seen màgg euh, ci seen wér-gu-yaram soxla nañu ñu am lekk de qualité et en quantité donc major bu fekkee am na ay initiative yu jëm ci côté boobu dañuy wax alhamdulillah bu ñu mënee am cantine ci école yi dañuy jël ndax euh, xale yu bëri comme ni ma ko léegi Touba la ñuy jóge euh, amaana ba ñuy ñëw ndekkiwuñu bàyyi nañu ay difficulté donc bu ñu ñëwee école mën fa fekk dispositif boo xamante ni euh, daf leen di indil apport alimentaire loolu aussi wax dëgg yàlla lu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax lay doon ñu koy encouragé rek di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci ci loolu dig nañu ko te gëm nañ ni loolu dina am incha allah parce que ku ne xam na ni. dëkk buy dox santé ak éducation euh, ñoo njëkk a dox pour que dëkk dox euh, loolu nag euh, major comprendre na ko parce que école yi comme ni ma ko waxee léegi seen ay moyens matul état mënut a matal lépp participation communautaire moom faw mu am te participation communautaire nag bu ñu koy wax parents d'élèves yi ci lañu mais aussi ñi nga xamante ne ci école la ñu jaar jàng fa tekki ba am teraanga ñooñu aussi baax na ñu gersu xam li école indil ñu mën a dugal seen loxo